te Macky Sall mii ku ko gis xam ne nitu jàmm la lépp lu muy def ci Sénégal ñëpp la ci yéene jàmm baykat yi sàmmkat yi ba ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo ne ci biir marché ba Macky Sall mu ngi leen di bàyyi xel bu leen bëccëg en tant que directeur de campagne donc sañ naa ci waxtu bi ma wàccee son excellence Macky Sall yëkkati leen. Chers citoyens, Thiessois, Thiessoises, force jeune universelle rafetlu naa seen teewaay ni ngeen daje fii it teertuñu rafetlu nañ ko. Vive Macky Sall! Vive Macky Sall! gis nañu jaaral ko ci ni nga xam ne ñoo ngeenu teeroo gis nañu dund ci yéen gis nañu yëg-yëg ci yéen. gis nañu tàqte ci yéen. looloo tax bés bi tey méngoo na ak seen taxawaay. té ni nga ambiance bi fi am que na lo victoire bu ñuy au soir de l'esprit bi nga proverbe naan amna proverbe dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quelle avenir tu auras et compte tenu de votre vitalité je compte faire de vous le noyau dur pour m'appuyer afin de construire l'avenir d'un pays qui sera émergent dans, dans cette Afrique et dans le monde entier. Je profite de cette occasion pour vous renouveler mon soutien sans faille, car votre bravoure est reconnu tous par tous implicitement et explicitement. Car vous autres, vous bravez le soleil, vous bravez les distances afin d'aller un peu partout dans cette ville, ramener des gens qui sont mourants afin que vous leur puissiez leur donner la vie. Des gens qui sont désespérés, donner l'espoir. Des gens qui étaient perdus, viciés, vous leur redonnez la restauration. Et tout cela contribue à générer des bénéfices pour l'État. contenu continue à générer des bénéfices pour l'État. Car la personne qui est souffrante ne peut pas aider son État. Car la Kennedy qui disait, dis-moi, il faut se soutenir d'abord du devoir que tu as envers ton pays que du droit que tu dois réclamer à ton pays. Donc la personne qui est restaurée est capable de donner quelque chose à son pays. Et c'est ce que vous faites. Je vous en remercie. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui que je vais m'appuyer sur vous afin de pouvoir construire en Sénégal nouveau. niveau des choses sociales. déjà soo leen xoolee wala soo leen seytaane média yi wala soo leen doxee ci dëkk bi gis ngeen ay mbir yu bees yoo xam ne am na fi amu fi woon benn ci aéroport bi nga xam ne nekk na seen wet déjà soo leen bëggee tukki léegi soxla woo leen di dem Dakar ñaareel bi mën naa wax ne ci wàllum mbéy mi déjà que c'est, Sénégal a un bénéfice 18 milliards bu engager. engagé ko ci manam li nga xamné de bi nga xamné yok Je nañ quota bi nga xamné mom lañ doon ko ci de terre bi ak oignon bi ak yenen yi nga xamné manam nañ ko mu tax Sénégal am ben bénéfice bu constant donc dama jël ben engagement bu solennel bo xamné dana déployer ben arsenal juridique de xamné dana leen di gëna protéger arsenal juridique boo xam ne dina leen may liberté te déjà jël naa ay engagement ci chaque région boo xam ne nekk na fini ci Sénégal na fa wut ben espace bo xam ak kayr bu wërëm firnde na yéen ci sen bop yéen yéen a koy ngeen def ci déjà sen teewaay firndeen la lépp seen xar kanam sum ko xolé ndam rek la ci gis fi ma toll nii amoon naa confiance waaye gar naa am confiance ndax yéen ñu takku ngeen yéen ñu am maanaa ngeen yéen ñu am fulla ngeen yéen ku jàppale doon jàppale jàppale nit ku leen bàyyi bàyyi nit ndax gis naa ne yéen ni ngeen ma teeroo tey romb naa Sénégal yëpp waaye li ma gis tey weesu na dayoo ci ngoonu mois de février 2019 yéen ñëpp di ngeen génn ànd ak man dox ci mbedd mi fête victoire bi ndax sa kanam sa kanam sa kanam sa kanam sa kanam waaw ah, maa ngi leen di jërëjëfal yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant seen teewaay waxtu woote ba su jotee commencé leen daas seen carte yi déjà te waxtu ba su jotee kon dem dugal ci urne ba mbir ma nekk lenn jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë jëf jërë jëf jërë jëf jërë ngeen ngi leen gërëm di leen sant mbokk yi yéen waa Thiès fépp foo leen mën a nekk ci biir Thiès lii ngeen gis ni nekk na loo xamante ne euh, firnde euh, suñu kóolute ci ki nga xamante ne mooy le général de la poste Pape Siré ki nga xamante ne fii jëbi Thiès mu ngi def euh, ay jéego yu am solo kon nag lii defuñu ko kese pour yem fii lii dafa nekk li jiitu kese parce que dinañu def leneen lu raw lii dinañu dem ci avec yi nga xam ne moom moo ko fi samp mat na ñeent te yi nga xam ne man maa ko jiite fii mu nekk ci biir Thiès ci quatre communes de Thiès kon nag Pape Siré Dia lii itam lañ la war a mun a fay ci biir Thiès te yemuñu fii itam ñu ngi lay gërëm ci lépp li nga nekk di def comme ni ma ko waxee sànq itam ki nga xamante ne moom moo tax aussi yow nga samp dugal ñu biir poste C'est euh, le, président de la République Macky Sall. Te nous ramené, euh, du yago touti d'ici quelques mois, 8 à yoyou. Donc, euh, nous dem campagne pour sa propre élection, mon petit bopom. Donc, parce que nous sommes ici, nous avons signé carte pour voter. Référendum, nous avons acquis. législatif ñu ngi yoon ak yow kon nag ñu ngi firndeel kóolute kooku ne la au soir du 19 yow la ñuy voteel tey am nañu kóolute ne yow la ñuy jox ndam te Thiès yëpp xam nañ ne yaa ngi liggéey weesu nga kuy wax kese waaye yow jëf moo gën a gaaw ci yow kon nag ñu ngi leen gërëm di leen sant ci lii ngeen déglu ñii nekk nañ ay jeunes ay maman troisième âge lépp a ngi fii te yàgg nañu ak si déjà depuis 2013 def nañu caravane ba ci toutes les élections yi nga xam ne moom moo fi jàll kon boo jotee ci xibaar bi xamal ne firnde la ci kóolte bu nga xam ne ànd bu ñu yàgg ànd ak yow te saa su ne ñu ngi ci lii yemul ci li ñuy def te du ñu continuer ñu ngi leen gërëm di leen sant wasalaam.